Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boki mbokki jàkkaaruñu setan, duñu sétane ñi ngi nuy kenn ku nekk sa tur ak sa sante ci di len ziar bu baax baax mu melni nak euh, niñ ko doon defee boobaak légui nekk ci yu magal mbacké kadior ba fim mu nak mu melni benn bëss rek mo dox suñu digënté wala ay waxtu mo dox suñu digënté ak euh, bis bi nga xamni moy talata ji di bisu magalu mbacké kadior mu melni nak euh, ñi ngi togo ki nga xamni moy coordinateur magal gi di Serigne Cheikh Thioro mbacké mom Cheikh Modou bashir mom Cheikh Modou baram mbacké mom Serigne Touba Khadim Rasoul rahmatullahi wa sëñ Moussa ñu ngi leen di nuyu waa Murit Info euh, di leen sant ci seen taxawaay euh, màggal gi euh, fi ñu toll ci wàccaay bi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ñun li ñu war a def yëpp def nañ ko li ñu war a wax yëpp wax nañ ko li ñu war a bind yëpp bind nañ ko donc état bi ñoom ñoo ci des te ñu ngi def seen kéem lay kattan mën naa wax ni chef service yi nga xam ne yëpp service yi nga xam ne yëpp ñoo fi war a ñëw ngir liggéey si ñoom ñëpp agsi nañu. xam naa hydraulique rek moo nekk ci yoon bi dañu ñëw euh, incha allah dinañ agsi ci kanam tuuti waaye muy wàllu sécurité bi muy wàllu courant bi muy wàllu assainissement bi muy fànn yooyu yëpp mën nañu wax ni yëpp yéwén na niñ ko war a defee defe nañ ko noonu xam naa ñu négandiku rek waa hydraulique agsi ñoom rek ñoo ci des su fekkee ni ñoom matale nañ rek dañuy wax ne màggal dañ ko daal di am à 100 pour cent waaye ñu ngi sant yàlla yëpp ci lépp ndax euh, wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi ñu ngi mi ngi dox. mi ngi dox waaw taalibe yaa ngi ñëw ñu ngi liggéey e, ñëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ñu ci sant bu ci bis bi e, bis bi mooy lañ ci fàttali mooy màggalu jumaada ula muy màggalu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi mu ganee àddina te ku nekk xam na ni bi mu ganee àddina Sëriñ tubaa dafa wowoon ñi jaayante woon ak sëriñ bi. fii ci Mbàkke Kajoor muy ñeent fukki góor mu leen li ngeen doon sàkku ci seen borom gan gi ñëw andil na leen ko kon ku ne xam na ne bisu taw feex rek bisu ndimbal ak bisu faj aajo liñ ci wax rek mooy koo xam ni da ngaa am soxla wala nga am aajo bëgg mu faju soo ñëwee ci bis bi suñu borom dina ko faj ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara taxawaayu Cheikh Sidi Maxtaar nag mooy taxawaayu Cheikhul Xadim ci njaboot gi jikkoom la yor melokaanam doxiinam ak teg tànkam fi nga xam ni fi la maamam tànkam te mooy sax ci lislaam ak sunna ak woon àddina ginnaaw moom nag moo woote bis bi ndax ngir sant ci waajuram Cheikh Mouhamadul Amin ndax dafa wax ne li ko baayam defal Cheikh Mouhamadul leen bar defalu ko kenn ci ak njabootam defalu ko kenn ci ay doomam mu koy sant te cant googu mu xeeb ci boppam ma waral mu woote ko woote ko nag ci tanzimuhu bi sunnati ci ñaanal ko ci fàttali ko ay jikkoom ci ci ñaan gi nag mooy alxuraan ku ni ñaan wax alxuraan kon magale magalu alquran karim la way ñi ngi sant yalla ndax pays islam yépp ak daara daaray alxuraan yëpp ak euh, dawaayir yi daayira yi ñépp ñi ngi jàng alquran daanaka li jotagun ci ay limi kamil kenn mu la xam lim bi kon non la ko sëriñ bëgg ñëpp ang koy défé non euh, ñu sakku ci ñëpp itam ñu continuer di jàng alquran euh, di tuddu yonent bi di julli ci mom di sant yalla di jéggulu to di ko ñaan loolu su amé rek day bax ci Sénégal day bax ci ñëpp euh, kon taxawaayu sëriñ bi mooy loolu bisu cant la bisu ñaan la bisu fàttaliku la loolu mooy taxawaayu sëriñ bi ci màggal gi. waaw Mbàkke Kajoor moom bi sëñ bi nekkee xalif ba léegi maanaam mi ngi yokk ndax gis ngeen ni ab commune la dama def goudron bi moo ko fi def euh, centre de santé bi moo ko fi def am na benn centre sociaux. bu ñuy tabax boo xam ne président Macky Sall moo ko may ñu ngi ci mi ngi mi ngi en cours bu yàlla dimbalee balaa déwén bu ngeen ñëwee yéen ñëpp ngeen am fu ngeen dal ci kàttanu yàlla euh, am na ay forage beneen forage bu ñu fa bëgg yokk boo xam ne président ko maye am na lu ma toll ci ñaar fukki yoo xam ne itam incha allah fii mois d' avril wax nañ ma dina tàmbali loolu lépp nag euh, day dellusiwaat ci euh, sëñ Touba ndax sëñ Touba ku ne xam na ni fii la nekkoon ba yonent bi feeñ ko fi alayhi salaatu wasalaam yoonu murit juddoo fi taal bu tàkk rek fii lañ ko taalee kon loolu lépp soo amee Mbàkke Kajoor kenn du laaj lan moo tax mu am euh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ku fi dugg xam ni mi ngi yokk ren ji itam am na fukki kër ak juróom yu fi yokk waaw te loolu lépp ay sëti sëñ baara la ñu ñoom ñëpp ñëw fi euh, am na it ay kër yu ñu fi natt yu toll ci ñetti téeméeri kër yoo xam ne képp koo xam ne da nga bëgg teere boo ñëwee ñu jox la bu soobee yàlla nga dëkk ndax dëkk bi dëkku ñëpp la ñëpp ñoo ko moom ndax sëñ Tuubaa Maamoor Anta Sali ko sanc mu joge fi indi sëñ Mbàkke kadior tek ko fi mam Ceerno ibrahim fati ñewon nekkoon fi ba joge fi sañc daru daru mooti bay fi mam Cheikh Awa Balla mu joge fi bam mu daru manan bay bàyyi faal nga xamni ni seen eh, mam maam Cheikh Ibrahima Faati fi la gisanteelu sëñ bi ñu ngi fi sëñ adam gi am nañ fi kër seen kër mi ngi fi de nga njabar sëñ Mbàkke kadior ñi ngi fi alors mam Cheikh Absa itam eh, ki nga xamni moy mooy bala eh, balaa sëñ Masamba mam Cheikh Absa fi la gane adina feetale alxuraan doomu Maam Mor Anta la moom itam jox nañ leen fi pàkk jox nañ leen fi terrain boo xam ne incha allah dañ fi dëkk si ndax kenn ëpp leen cër ci dëkk bi kon dëkk bi dëkk la boo xam ni dëkk bu yaatu la kenn ku nekk danga fay am cër moo tax mu nekk euh, ñu ñaan ci ñëpp ñëw incha allah ànd ak ñun ci ci ci ci màggal gi dañ ko baaxee def. Euh, programme bi mooy ñi ngi ci programme moom ñi ngi ci mooy jàng alxuraan jàng ay xasaay di siyaar sëriñ bi. suñ demee nag ba ginnaaw timis ci la ñuy def cérémonie officielle bi ren incha allah premier ministre mooy ñëw premier ministre mooy ñëw teew président Macky Sall euh, ba ñu noppi ci cérémonie bi euh, ñu defal leen yëfi mbusoo be suñ noppee delluwaat ca base ba di waxtaan ak taalibe yi ba ba set incha allah suñu xëyee nag ca àllarba yi ci ay onze dana ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ñëpp loolu lañ ko fas yéene di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu kàttanal ñu. ba àggale loolu bi barakati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam hmm.